Cheikh Ahmadou Kara Mbacké ñu gën koo xam ci généralu bàmba naam askanoona ci kërug diine gu mag waaye li nu gën a ràññee ci moom mooy doxalina wu méngoog jamono dëggoom ak yite ji mu jox xam-xam ak yar ubbi jëme ci ñëpp tax na àdduna sépp wuy si ko rawatina ndaw ñi mu di leen nàmpatal ci yàlla yoneen bi ak Serigne Touba. mi ngi gëné aduna juroomi fan ci weeru satumbar 1954 ca darul Muxti di dëkk bu nekk ca région bu Louga tol ak ñaar fukki kilomètre ak juroom ñett gëm ak Touba mi ngi door am njàngum alquranam ca Sikori ci taxawaayu waajuram wa Cheikh Ousmane Noreyni kenn ci njabootub maam Thierno Ibra Fatin damal Daarul Muxti tine ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre 1981 doonoon bis bu tiis ne ci la wajuram wa ci ousmane bakke nouréni boromam mu wutu ko ci yoy le jamono ci ahmadou karam Nouré ni mi nga amone ñaar fukki at ak juroom ñaar yan ba disoon lol wa ca jom ja ak ngor ga tax mu ufan jabot gi samu ndono li yaatal itam dara ji donon khalifu maam ceerno ibrahim bakay di turandoom ja sëñ mudu aw balla yëkëti woon ci ay kàddu yu mata bay xel modou aw balla ci sëriñ Mouhamadou Kara Mbacké Sy Noreyni kere bi nga xam ne sëriñ Ousmane am na ñetti fan bayti la sëriñ Modou Kara am ñetti kaar yu mag bàyyi ko ndakaaru dikk di taalibi Sidna Ousmane mu ànd ak ñoom dem maqaama fekk fa sëriñ Modou Balla ba mu ko siyaaree ba noppi sëriñ bi bëgg ko lool di ko xool rek waaye daal di nuy dimbali nag ni ma Amadou Kaay ma dikk dend ak moom mu ne ma wax leen ni leen nañu ànd ak moodu te bàyyi ko baatam aha Modou seex bu rëy nga war a doon waaye bu mu la saf na la ak taalibe rekk saf aha Modou danaa ñaan sa boroom loo bëgg yàlla def ko aha jërul ñaan loo bëgg yàlla def ko aha àdduna jépp bu ñu yoroon fetal di la diir duñu la jàmm ne ko jàkk ne ko aha Modou dama bëgg ñoom ñëpp ñu ànd ak yow nga jóg jógaale leen ah dama bëgg ah dama bëgg ngeen ànd ak Modou te def ko muy seenum Serigne Touba bu baaxee baaxal leen bu baaxul baaxal leen. ci atum 1995 dëppoo ak yéeneem ci la ko Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu doon xalif général des mourides ba woon jébbal ab téere bu toll ci juróom benn téeméeri xët ak juróom fukk ñu duppee ko diwaanu silkul jawaahir fi axbaari sarair te cheikhul xadim bindoon ko tur woowu la jël duppee ko ci nasaraan mouvement mondial pour l'unité de Dieu diwaan bi nag li ko tax a jóg mooy liggéeyal yàlla ci jaamam ñi amu ci xaj ak seen loolu di dëppoo ak li suñu borom ni woon wala xadd karam na bani adama ñun yàlla dañoo teral doomu adama rekk ci loolu ndax ci njiitalu maam Thierno Birahim Mbacke di jëwriñ ci diwaan bi dana amal yeneen activité lu ci mel ne defar bërëb yu ñëpp bokk moo xam muy garas moo xam muy ay hôpital dana itam faral di maye deret ci hôpital yi di séddale ay bernde ci màggal gi saa yu ñëwee di amal am njàngale akum sikkar ci koñ yi di dajale gone yi saa yu wakaas ñëwee ngir di leen xamal seen diine 31 décembre saa yi ñëwee nga xamni bis la won bo xamni ñu bëri dañ koo bisu po dañ cee jaamu yalla ak di ci sikkar bu bët set benen liggéey itam buñ leen ragné moy sa su ne ñu ngi défar armée li mo xam mu nekk lu julit wala mu doon armée chrétienne Kara sécurité doon na kurel go xamni liko li juk moy sam temu ak ar lepp lo xamni ne yëngu-yëngu seen ak seenuk tay ak seenuk dal moo la presse nationale bi de les commandos de la paix bokku na ci li rañu ko seenub liggéey bu ñu ci atum 2005 bi mbënd mi lay Sénégal ñom ñoo futteeku ngir génné ci ndox mi lu tollu ci ay kër fu Pikine te mu nekk fi ci euh, ñu fi gissé rek dañu xam li waral li daan waral suñu ndigalu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ma suñu jox ndigal ñu fi ñew en 1900 2005 ñewon nañ fi def fi 4 mois yo xamanteni bi dañ leen doon nañ dimbalé population bi ren it bi ñu mbir yi demini ak euh, appel bi nga xamanteni bi gis nako, euh, ak euh, passif bi nga xamanteni bi citoyen sénégalais yi jog nañ taxé ko ngir dimbalé leen mu jox ñu ndigal ñu jog ngir ñëw fekk si waat leen dimbali waat leen ci jafe-jafe yi nga xamante ni bi euh, coobare suñu boroom la yàlla moo ko teg moo leen ko teg waaye ñun tamit ñu di ay doomu aadama ñu fekk si leen ci loolu euh, jàppale leen sëriñ bu jox ñu ndigal boobu léegi ñu nekk fi ak ñoom. Kara sécurité am na itam daara joo xam ni mi ngi ko am fii ci banlieue bu Ndakaaru la ko tax a jóg nag mooy fexe ba gone yi nga xam ne dañoo jàdd yoon ñu dajale leen yar leen tàggat leen. ba nu mën a tegewaat ci yoon moy sama dom la fi indi won ndax bo mi ci ay jafé jafé yu metté metti papa ma ngi feebar teud mu indi ma ay problème yu dul jeex daal ñu bolé ma ak caam ba ma ko fi indé nak ci la doog nelaw wa ba ma ko fi indé daal gis na ci tan gis na ci jup wax deug yalla ma ngi sant yalla bu baax di sant di len sant di sant sëñ bi bu baaxa baaxa baaxa baax baax waaw ci atum 2002 ci la taxawal orchestre philharmonique pour la paix mondiale ni tuddé ko Mélodie divine orchestre bobu liko ko moy a jóg mooy Cheikhul Khadim jaarale ko ci ada ci jamono bu nu seetloo musique bëri na loolu ñu koy jëfandikoo sëriñ bi nak indi xeetu musique boo xamni liko li moy tax doomu adama yi ak def ci ñom ak dal ba tey ci nonu ci la taxawalé la nouvelle gamme musicale sacrée mu doon lu yéeme ne lu ñu xamoon ci way moo di ñaari gaam moom sos la troisième gamme universelle bu ñuy jëfandikoo do mifa mi fa sol ko si abajada fa ñuy tàmbalee càmmoñ jëm ndeyjoor moom mu cay ndeyjoor jëm ñu gën koo xam ci parti de la vérité mi ngi ko taxawal ci atum 2004 kuréel gi nag li ko wutale ak kuréel yi ñu fi daan gis moo di moom xalaatam ak doxalinam jëggaaniw ko bitim réew léppam da ko sukkandiku ci njàngaleem nit ku ñuul tey doomi réew mi muy Cheikh Ahmadou ba Xaadim Rasul ay chartam itam mi ngi ko teg ci juróomi ponk yi te mooy dëggal jubal leeral yatal te jégale li ëmb liggéey bi yépp nak mi ngi ci limu mujjé sos tuddé ko Bamba Fep, Bamba partout Bamba merci ne kenn wu ni Cheikh Ahmadou Kara no réni yëngum akub dalam yépp mi ngi ko délawat ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Bamba Fep, Bamba partout Bamba merci kuri la go xamni liko taxajuk modi tax a xam Cheikh Ahmadou Bamba maanaam idéologie am bëgg itam ñëpp di ko doxe di ko jëfe ci àdduna si ci xereñam ak bëgguk cheikhul xadimam moo waral cheikh ahmadou kara mbacké noreyni bindu lu toll ci ñaari téeméeri téere ak ñaar fukk ak ñaar yooyee nag ñaar lañ ci jot a génnee benn ba mu duppee ko barzan jiw ba ca des asmaawu cheikhul xadim lii nag bokk ci liy dooleel kàllaamay réew mi ak alphabétisation cheikh ahmadou Kramba mbàkke Noreyni doon na ko dana jeflante itam ak mbollem ñi mu maaseel jamono mo xam muy nitu diine nitu politique nitu way tagat katu yaram yi ak kat yi yeesal bi mu mujja def moo di musée mobile des Cheikh Ahmadou Bamba ci pàttali Serigne Touba daan jël lal ya gën a di ca teg karim ba noppi di ca sotti parfum yi gën a neex wëlbatiku moom tëdd ci suuf tay fi tay ki nga xam ni moo dib généralam di Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni tànn ci yenn ci oto yi gën a rafet ci jamono te may limousine def ci xaside Serigne Touba yi ngir warbal mbindum Cheikhul Khadim lépp rek ngir wane mbindum Serigne Touba ne Serigne Touba moo ni woon xatu yaddi samay kirama mooy sama mbindum loxo